la di nàmp. maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp. day leeral mënul leeral taal. man. Eh. maa ngi yéeg bu baax. Eh, maa ngi yéeg bu baax. Eh, maa ngi yéeg bu baax. maa ngi yéeg bu baax. maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp. maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp xale yi bu baax di nàmp maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp maa ngi yéeg ci xale yi bu baax di nàmp أخرجه مخرجا استغفر الله